jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yi safoo seen chaine bi leen di 5M TV Sénégal jëfal nañ leen bu baax a baax xibaar yi kàddu yi nga xam ni kon Pape Alé Niang yëkkati na ko jagleel ko Ousmane Sonko ginnaaw gis-gis bi mu am ci wàllu démocratie sénégalaise bi mu ni kon lu jëm ci wàllu politique sénégalaise mu nekk ab mbir mu am solo file ci réew mi ndax nag lu ñeel wàllu démocratie bi nga xam ni sa su nekk dinañ ko wax Ousmane Sonko nekk candidat patriote yi ci nag élection cim réew ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 moom Ousmane Sonko askanu Sénégal daal di koy jox bopp waaye itam jëm rek ci wàllu démocratie bi nga xam ni bëgg na ko fee wëyal ak itamit justice ba ci liberté loole yëpp mu nekk lu ñu soxla moo waxal kon ndaw ñi daal di koy bëgg jàppale ci li nga xam ni moom la bëgg rawatina ci situation bi nga xam ni kon ña ngi koy doxalee ginnaaw googee ñu ne ay qualité yu am solo moomee la Ousmane Sonko am opposé opposant politique bi nga xam ni kon marqué na sénégalais yépp ci at yile lu jëm ci wàllu démocratie lu jëm itam ci àq ak yelleefu doomu aadama li nga xam ne constitution bi kon moomee moo ko war a taxawal bu baax a baax Ousmane Sonko dellusiwaat itam moom saa su nekk kon di joxe ay xal ay xel ak ay xalaat jëm ci mbir mi ah, moom mi nga xam ni kon maire bu Ziguinchor la moom mi nga xam ne itam moo jiite opposition bi fii ci Sénégal muy xeex jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama waaye itam liberté ñu am ko saa su nekk ba suñu rek lépp loo xam ne droit la. ñu daal di koy moom waaye tey jilee moom mu mel ni kon lépp rek dañu koo daal di nangu ci moom ma la mu leen xeex yépp mayetuñ ko jàmm ba tax na ko ndaw ñi toog ñoom itam di ko rek may gët waaye itam di ko xeexal di ko bàyyi xel saa su nekk jàpp ni kon moomee mooy ki gën ci réew mi mooy ki gën itam ci Afrique ak na muy doxalee na muy waxee jëm ci wàllu liberté ndax loole la soxla tey jilee ñu daal di koy jaay doole daal di koy téye moom Ousmane Sonko mu mel ni kon lépp day rek naxasaay jëm ci wàllu liberté boobee jëm ci wàllu démocratie tey jile itam comme jëm ci wàllu politique bile nga xam ni da ko bàyyi waaye ba tax na ñoom ñu ni kon duñu bàyyi rek benn yoon ginnaaw am négation bi nga xam ni am nañ ko maanaam ak cofeel bi nga xam ni am nañ ko ci Ousmane Sonko ba tax na lañu bëgg kay mooy jëm ci wàllu démocratie sénégalaise bile mu nekk ab mbir boo xam ni lu am solo lay doon ba tax na sax CEDEAO moom itam daal di ciy àddu ndax nag moo ñeen lu jëm ci wàllu Afrique bile te loole da ko war a saytu nag bu baax a baax te loolee lañu ñu daal di soxla ba ñu xam rek li ñu bëgg waaye tey jilee bu ñu dee xool rek ci njeexital gilee moom Ousmane Sonko mu nekk nag opposant politique bi nga xam ni moom la ñu gën a xam te moom moo gën a wóor kon ci réew mi la ñu jàpp jàpp ñu jàpp ni kon Sénégal ak na muy doxee moomee ginnaaw bu ci rek téyewee dina gën a jëm kanam ndax loole la daal di gëm ginnaaw li nga xam ni moom la fi fësal ba ndaw ñi daal di yeewu jëm ci nag réew mi nañ koy doxalee mu ni kon tey jii la itam Sénégal ñu ngay waajal lu jëm ci nag élection falum njiitum réew ci atum 2024 mu yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ñu jàpp ni kon bile situation dina rek soppeeku jëm ci wàllu respect ak principe principe démocratique ndax Ousmane Sonko milee nga xam ni rek ab ndaw la am ab koo xam ni la kon bàyyi nañ ko xel bu baax a baax jëm ci wàllu xalaatam waaye tamit ci avenir réew milee nga xam ni moom la daal di fësal daal di koy dëggal ba sénégalais bu ne kon daal di koy bàyyi xel jàpp nañ ni kon bu ko yoree Sénégal ak Afrique dina rek jëm kanam